salaamaaleykum mbokk sénégalais ñi may déglu ñi ñuy bàyyi xel di ñu bëggee ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp gannaaw loolu daañu julli ci sangu sangu yi Seydina Muhammad salaa di ñaanal senegal yàlla def fi jàmm di ko def ci réew yëpp ci bitim réew ak fépp waay mën a nekk ci àdduna ñi ngi ñaan aussi euh, ñi nekk ci prison yi duñ leen fàtte yal na leen yàlla defal jàmm suturaal leen ñu dellu seen ay mbokk te yàlla def ñu feebar yàlla yëkkati leen yàlla suturaal leen ba nga xamante ni feebar yi dina fi jóge tey nag euh, damay continuer rek ci waxtaanu démb bi parce que démb yàlla xam ne ni ñu ngi doon wax ci euh, grippe bi nga xamante ni mi ngi def ravage mi ngi def ravage parce que ñun ñi ngi ñuy indil ay ñu grippe rek ñoo xamante ni dañuy feebar ci wàll boobu mais ñi si ëpp si ñoom dañuy wax ni jëkkee nañu hôpital xam nga nit yi moom boo jëkkee feebar rek li ngay jëkk def mooy dem hôpital boo jaaxle mais ñoom dañuy wax naan defal nañ leen analyse def nañu analyse def te affaire boo xool ba si biir grippe mi ngi ci grippe lay présenté te grippe foo ko dégg rek en général da nga naan kii virus la virus bu bu bu bu nekk ci yaram bi léegi nag ñun démb ñi ngi wax ni virus inconnu la virus bu nga xamante ni peut-être que nit ñi gisuñu ko parce que mënoo comprendre que def analyse te mënoo mënoo gis dara ñun ci biir waxin noonu nañ ko mën waxee mais cela ne veut pas dire que euh, médecine bi mënu koo génne waaw mënu ko génne parce que euh, waxin la parce que médecine du ñàkk mën na wax ni la tel ou manifestation la tel ou euh, feebar bu mel nii bu mel ne la waaw mais ñoom ñun li ñu jaaxal mooy ñoom li ñuy ñëwee maladie ni ñuy ñëwee si ñun te dañ naan la dem naa def naa analyse def naa analyse def naa la te ñun su suñu njàngat dañu naan kii grippe la léegi nag ñun bu ñu boolee les deux soins defal leen euh, mélange toppatoo leen ci wàllu reen ak sunguf toppatoo leen ci wàllu ñaan yàlla euh, yi nga xamante ni moom mooy dindee Euh, ci wàllu xam-xam bu ñu li dindi yenn feebar yu yu compliqué yi yi nga xamante ni médecine mënu ko gis mënu ko mënu fa àgg bon ñooñ dañuy gis ni en général dañ leen koy defal ñu wér dañ leen koy defal ñu dellu seen sago parce que da ngay xool nga gis ni am na lu ndam am na lu nga xamante ni mi ngi ko topp médecine xëy na gisu ko ñun dañ naan grippe la grippe bi peut-être virus la mais ñun duñu mën a xam ni lu tax médecine gisul virus bi comme kii dafa sibir moo tax ñu kii dafa euh, voilà grippe moo tax ñun toujours rek ñun dañuy jéem a xool naka lañ koy faje naka la ñuy attaquer feebar bi directement pour bañ a def benn erreur xam nga am nañu ñu nga xamante ni par exemple décoction yi nga xamante ni dañ dañ koy def ci wàllu reen ak sungu fi am na ñi nga xamante ni saab-saab bi dañ koy jël jinjeer baa ngi fi. Euh, citron baa ngi fi gise mélange yooyu en général mën nga koy digal nit ki mu mu mu koy booleeg euh, ay xorompole di ko naan di ko defar si selon benn mélange de dosage bu nga xamante ni buñ la ko indiqué yàlla mën na la si dimmali nga am force mais nag force boobu cela ne veut pas dire que mën na la wéral li la mën a wéral <coughs> mooy côté mystique il faut que ñu defal la sara ñaana la yàlla pour yalla may la doole yalla dindil la lu nga xamanteni moy mooy natt bi nek ci mais en même temps bu fekkee ni virus la kooku moom antibiotique ak ay feebaru antigrippe moom moo ko mën a dindi loolu nag mu nekk lu compliqué moo tax démb ñu jaaxle ci malade ni ñu xawoon a bëri ba ñu expliquer ci situation bu ni mel moo tax nag nit ñi nañ bàyyi xel ci waxin yi nañ bàyyi xel ci ci nit yi ni ni waxee xam ni effectivement mm, feebar yi bëri na ci jamono ji feebar yi mi ngi faagaagal nit yi mais nit ñi bàyyiwuñ ci xel ndax testé su jamono bi dang-dang gi loolu tax na ba nit yëpp kenn bàyyeetul xel si sa santé kenn nekkatul di xool di xool lan moo la jot ak fan nga war a jaar pour attaquer sa xam sa sa sa sa sa santé say say feebar yu sew ay feebar yi nekk si nit ki di nelaw te en général moom rek mooy yóbbu nit yi feebar yi sew yi nekk ci yaramu nit yi rek ñooy nekk di gëmm di développé di yàq yaramu nit yi ne nit yi bàyyi xel ci loolu te bàyyi xel ci euh, analyse yi ñuy def bu buñ ci gisul dara rek nañu ñëw ñu xoolal leen que bu defal leen ay sarax comme sa bu fekkee ne nattu la bu la yàlla teg wala seytaane bu nga xamante ni mi ngi lufu si yow di la ranger ci kàttanu yàlla buñ la defalee ay cangaay defal la ay traitement ci kàttan sun borom yàlla dina la may tawféex mais juste c'était pour expliquer rek démb ci sunu titrage titre yi doon wax di expliquer di xam di wax xamal nit yi ni ay euh, façon ay euh, façon virus yi nga xamante ni jamono ji compliqué na compliqué bu nga xamante ni aha mi ngi sonal doomu aadama yi ci hôpitaux yi mi ngi sonal doomu aadama yi ci kër yi nit ñaa ngi eh, faral di deedee yu gaaw ci eh, wàllu wàllu feebar boobu wàllu feebaru grippe nañ bàyyi xel parce que coronavirus bi sonaloon na fi doomu aadama yi mais nañu xam ni am na continuation am na ay variantes yu nga xamante ni ñu ngi fi di fat fatt ni di di yàq ni di di continuer di développer te parce que genre feebar yooyu en général ñëwee ci société rek du dem dañuy changer di am ay variantes yu nga xamante ni ñoom ñooy multiplier rek di continuer di sonal doomu aadama yaa nañ ci yàlla musal musal si sunu njaboot te yàlla suturaanu yàlla def jàmm nga xamante ni képp ko feebar yàlla may la tawféex yàlla def jàmm si sunu entourage def ko juboole xol yi faj aajo yu gudd fan yu wér jëri Cerno la woon ci waxtaanam toujours pour gën a xamal doomu aadama yi ñu bàyyi xel ci seen yaram yi bàyyi xel ci seen feebar yi feebar yu sew yi nga xamante ni moo lëmbee jamono di toroxal doomu aadama yi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam incha allah ba suba si waxtu bi